ndaw euh, yu doon sàkku nag euh, ñu jox leen courant ñoo mujjee jàmmaarloo ak takk der yee juróom-benn ci ñoom ñu teg leen loxo dem baak dikk ba ñu tagga tembeel ko lu ci maanaam daañ ci dem ci bët saalum réew ma fekk fa kañu fa toogal euh, di Bakary Konté wàllu wér yaram hôpital Fann ñu ñàkkoon courant wala sax benn pàcc ba ñàkk courant gannaaw ba benn câble bu lekk amee ay yàqu-yàqu lépp ñu defaraat ko lu ci mën moom ci Albert waaye opération yi dañu ba lépp jaar yoon Afrobasket 2015 sunu gaynde yi euh, quart de finale tey jii euh, seen diggante ak Algérie lay doon bu 17 toftale fanweeri simili daañu dem ci Tunisie fekk fa Cheikh Tidiane Diawo. tàggat yaram ba tey championnat d'athlétisme yee am ca Pékin ki euh, di Usain Bolt waneeti euh, xarañam ci wàllu 200 mètres yi euh, moo jiitoo ci nañu ko doon xaaree ka topp ca gannaawam di doomu Amérique bi di Justin Gatlin dossier bés bi mbokk yi ñu jagleel ko wàllu wérgu yaram ni ñu koy defee saa sune ne taxaw seetlu bi ci mat ñi la ak tàngaay wi buñ leen toppatoowul toppatoo ga ca war amaana ñu dund ak kiy jàngooro mbokk yi li mooy ponk yi fii gën a fës da ngeen di taaxirlu ñu ñëw faram mbokk yi bisimila xibaaru diggu bëccëg gi nañu ko junjee noonu ne koy dooree Aminata Mbaari Sow la ñuy fekk ci toitekaay ba Aminata nuyu naa la mu mel ne Ousseynou Diop ab àtteem tey jii lañu ko jàpp gannaaw ba nu ko dàqee ñaari yoon ndax mën nga noo wax mbir mi fi mu ne nii euh, fu mu toll Euh, Ousseynou Diop ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi ñu renvoyé procès tey ci moom mu ngi jàkkaarloog juge bi fi may wax ak yow ni sax moom moo taxaw ci kanamu baar bi euh, di waxtaan ak ñi di juge yi moom nii di Ousseynou Diop nag euh, fee yi nga xam ni moom lañ koy reproché daal dina nangu lépp nee na moom moo ko def waaye teg ci ne nee na lii li muy regretté la maanaam li muy rëccu la. ndaxte yàkkamti moo ko taxoon def waaye bu xamoon ni fii la koy fekk tey jii du defee ni mu neppe du defee ni mu defee moom nag moom nag nee na li mu def ni xam na ne baax conséquences yi mu mën a andi ndaxte mën na yàq tale bi waaye tamit du civisme euh, ci ne nag euh, le kii di agent judiciaire de l'État maanaam ndaw bi ci toogal nguur gi daal di jël kàddu gi daal di koy poser ay questions waaye nag question buñ ko laaj moom euh, day wax ne c'est vrai lii maa ko def reconnaître la fait yi waaye li ci gën a doy waar moom question bu ñu ko posé balaa muy répondre day reetaan mel ni mbir mi daf ko jëlee kaw ci noonu nag kii di agent judiciaire de l'État xamal ne ko na lii mu def lu garaaw la ndaxte mën na yàq bu bëri ba pare di joxe image bu rafet euh, image bu Sénégal ci tim réew loolu waral kii di agent judiciaire de l'État nee na juge nag lii dañ ci war a jël exemple maanaam finir ko su ko defee beneen taxi ba wala beneen nit bu bëgg a defaat acte de d'incivisme bu benn noonu euh, du ko defali euh, keneen tamit euh, ki ñu bàyyi muy lay instant bi bi may génn mooy ci ki ci ki di avocat waa Ageroute Ageroute mooy maanaam société bi nga xam ni ñoom ñooy toppatoo lu jëm ci fond boobule ñoom tamit li ñu xam xamle mooy taximaan bi li mu def dafa ñaaw ndaxte bu dee sax instantanément le fait que ñuy jaar foofu yàqul euh, pont bi ñàkk fii ak at cinq ans bu doon pont bi mën na dund trente ans du ñàkk durée de vie bi day wàññeeku maanaan quinze ans wala dix ans loolu waral ñu ñu ngi ñaawlu nee nañ tribunal bi na condamné kii di Ousseynou Diop waaye tamit mu daal di leen di fay di franc symbolique donc pour le moment foofu la ñu toll ci layo bi xamaguñu nag parquet bi lan lay recueillir ak tamit juge bi lan la ban décision la war a jël ci kii di Ousseynou Diop Aminata Bari soow ñu lay sant di la gërëm ci li lay leeral ndax yaa ñuy toppal ak àtteb nu Diop ñu wax ci yoon ak yoonal ba tey tombon waali xam ngeen ne euh, biig fanaan na ca ak njabootam ca Colobane ndaxte non lieu euh, lañu ko jox doyen de juge moo amal li ni moom ba mu génnee li mu xamle mooy sant ak gërëm euh, tey lépp mu teg ko ci loxoy borom bi li mu wax rek moom mooy kaso boobee mu toog lu jege at ndogal la bu mënta ñàkk te moom mu ngi koy dund bu baax a baax dañ ci ànd ak euh, Ibrahima Kane leeral. gannaaw lu war a tolloog benn at mu nekkoon ci kaso bi tombon Wally dem na nag fekk ji ay ñoñam fii ci seen kër nekk ci kolobaan salon ba nit ñaa ngi fay ñëw ngir daje ak moom massawu ko ci ab dal tombon Wally delloo lépp ci borom bi te dolli di ko sant nee na. c'est vrai que métti na loo xamante ne leer na yow euh, defoo ko mais dugal la ci li nga xam ne ndogal yàlla rek nga sante ko nangu ko et puis voilà ne di ñaan rek. app bu jeexee rek yàlla dina ñëw am na temps boo xam war nga mën def ak say say famille mais defoo ko ak ñoom bon séparation boobu aucune séparation ne ne ne ne yombul quoi séparation bu yomb amul. waaw loolu rek mais bon au delà de ça amul leneen loo xamante ni métti na ma si mbégte ak xel mu dal lu ni mel la famem wone gannaaw bi policier bi dellusee vraiment bésu mbégte la donc kontaan nañ lool bu suñu doom ñëwaatee suñu biir euh, après fukki weer ak euh, benn presque at ci biir kaso bi mu ñëwaat ñu tey am non-lieu donc euh, ñu kontaan ci baax di sant yàlla encore bu baax. gannaaw fukki weer ak benn caabi féete ko ginnaaw tombon Wally ne naam rëq-rëq la wante jàngee na ci lu bëri lu jëm ci wàllu boromam. man dara méttiwu ma ci ah, damay sant yàlla au contraire parce que pour man jaar jaar bi ma jaar foofu noonu nu mu bon gàtt na wala guddul yëpp. jàng naa si lu bëri surtout euh, en matière de spiritualité et voilà et beaucoup de sagesse ah quand même moo tax damay sant yàlla bu baax encore une fois de plus. ñun ay jaamu yàlla lañ ñun mënuluñ suñu bopp dara yàlla moo moo yor lépp yàlla mooy ne wax ku ne fa nga war a jaar fi nga war a jaar ala kuli alin la nga fay jaar et puis su amee nga nangu ko et puis nga garder sa sérénité nga garder sa dal et puis nga continuer gëm yàlla di continuer di def li nga doon def lu baax nga gën ko dolli. loo xamante ne dalay gàllankoor soo mu ne nga mu sori la tombon yi nag ñuy fàttali ne libéré nañ ko gannaaw bi mu amee non ci lu jëm ci faatub étudiant bii di Bassirou Faye ci fàttali parquet bu dakaar dafa daal di def appel ci décision boobu nga xam ne doyen des juges jël na ko ba tax nag tombon yi mën a libre tey jii Ibrahima Kane keneen ku nu bàyyeendoo ak tombon Wali di wuyoo ci tuuru Saliou Ndaw moom it euh, ki koy layool moo ko wax di maître Khassimou Touré li mu wax rek moom mooy euh, kiliyaanam bi dellu na ci ak njabootam ba noppi itam li gën a neex ci moom maanaam non lieu la ko ñaari boor di toppee euh, la ko ñaari boor toppeewul lu jëm nag ci mbirum Fatou Bassirou Faye googile doyen des juges ak parquet bi ñoom ñëpp nee ñu daal kii di Saliou Ndaw toppee su ko dar loolee jëmee ci euh, ki koy layool di maître euh, Khassimou Touré ba tey ci wàllu yoon ak yoonal euh, cour suprême dina joxe ab àtteem mu aju ci coow li doxoon diggante Serigne Mbaye Thiam jëwriñ bi ñu denk wàllu jàng ak jàngale ak élève maître yi ci fàttali nag ñoom seenub concours daal das ko annulé woon gannaaw ba nu nemmee ko ay rëq-rëq ak njublang ci mbile mbir loole moo nekkoon li Serigne Mbaye Thiam joxe woon moo tax ñu daal di euh, dakkal seen i mbir euh, ci lu jëm ci jàng ak euh, jàngale li leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi mbokk yi Cité Tobago ab app le gouverneur joxoon ñenn ci njaboot gi ñoom ñu ne dunu buuse mètre foofee la ñuy toog app ba jeex na niki démb tey ñu xëy yebal fa Papa Ndéri Fall Papa Ndéri maa ngi lay nuyu ndax njaboot ya fa desoon ña fa ba tey wala boog app ba tax na ñu daal di jóg. déedéet soxna Faty njaboot yi nga xam ne ñoo ko defoon ñu toll ci léegi ñoom ba léegi ñu nga fa ndax nee nañu àpp bi ñu leen joxoon démb la woon ci vingt trois heures cinquante neuf hmm. waaye ba àpp boobu la jotee kenn gisuñu benn takk der wala kenn kilifa boo xam ne ñëw nga fa rek ngir génne leen fa ndax te ñoom ndax nee nañu léegi bëggatuñ sax ku leen di woo ko génn ndax ñoom naruñu ko nee nañ daal nanguñu jóge foofu ndax seen këyit yi ñu leen jox mooy dafa jub ne fa ñu dëkk teg nañu ko ci yoon nee nañ sax ñu jàkkaarloo ko élimaane jëwriñ di premier ministre bi xamal ñu ngi ci yoon ndax lañu jënd ci këyit kayit yu ñu leen euh, jox firndeel na ni euh, foofule euh, ñoom ñoo ko moom xanaa nag dafa am rek ña ko jaay ñoo deful la nga xamante daal mooy yoon moo tax ñoom neen nanguñu a ñoom weddi nañ lu mel nee na ñoom comme ñun rek lañ ci am ci presse bi dañu ko yëgee te nee nag ñoom ñu ngi ñaawlu jëf yu ki nga xamante ni mooy gouverneur bu Ndakaaru ñoom sax dem nañ ba ni gouverneur bi dafa bëgg promotion ndax ba mu nekkee sa Thiès kenn xamu ko léegi nag ba mu ñëwee ci ñoom ba tax ñu ngi woo njiitu réew mi président Macky Sall nag mu xaw ci wut ci li nga xam mooy saafara seen mbir ndax fi mu toll ni ñoom xalaatuñ benn yoon jóge foofu nag seen i njaboot ndax fi mu toll ni sax nee nañ école lañu waaj ubbiwaat seen njaboot yaa ngi waaj jàll delluwaat seen lekkool i kër ñu jëlee leen la ñu jëm tax ñu nee nañ sax léegi li ñuy def mooy xëytuñ sax seen bërëb liggéeykaay waaye suñu yeewoo rek ñu ngi foofu toog ci xaar ndax nee nañ bés ne mën nañ leen fa jëlee daal soxna Fatou rifaal ñu koy sant di ko gërëm ci leeral yi di fàttali ne askanu cité Tobago ban fa yëkkati woo daane kër yëpp ko waral ñu fofee ñu ak yoon borom itam dégg démb ba néew ba kii Mor Sila ay mbokkam ñëwoon nañ daal di koy jël si ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom ci seen xar kanam ñu daal di ci mën a nemmeeku di di ak tiis migré bi waaye tamit nekk nit koo xamante vraiment ku baax la nangoo liggéey jullite lañ ko xam moo tax am na information yi wax yoo xam ne dara du si dëkk waaw nit ko sàmmaar la daal loolu mën a wax moment ma ko wala mu néew ne naa fa lu mat fukki at ak juróom-ñaar mbaa fukk ak juróom-ñett ñu ci bari nag ñu ndoog samay mbokki sénégalais xamante nañ xamante sama kër demoon naa ba mat lu mat fanweeri nit ci sama kër ma yor leen dogal li kon bi dul ñëw assisté ko te naq itam wax baax la koo xamante ko kenn naqaar ma yàlla ko amuk dal moom yaramam ak tegginam waaye rafetal na digteem ak jullit ak tarixe néew bi ñu daal di koy yóbbu fële ca hôpital principal bu Dakar foofe sax la ñu war a amal lii di levée du corps bi ci alxames gi ci suba si. suba ci 9h incha allah. Touba ci alxames ji. ki nga xam ne moom mu ngi juddoo ci xibaar bi nga xam ne polis bu Espagne daal ñu koy joxe moom dafa daanoo foofee ca balcon mu nekk benn version boo xamante ne sénégalais yi nekk foofee ca Espagne ñoom daal ni ñu koy nangu benn yoon ndax ñoom nee nañu ñii di waa police ñoom ñoo ko daal di bëmëx Cheikh Tidiane Dione ñu lay sant di la gërëm di ñaan moom Mor Sylla suufu Touba Mbacké ci kawam ñu wax ci beneen xibaar beneen ponk itam la bu nu jun jooñ ñu dem ca waanu euh, ca bët saalumu réew mi fekk fa Bakary Konte Bakary nuy naa la soxna si maa ngi si jàmm. waaw mu ngoog Diène euh, Malaré nag ay affrontement moom moo fa amoon euh, ci diggante ñi nga xamante ne si euh, ñoom ñoo dëkkee ca boobu les boor di ay ndaw yu bëggoon courant ak takk der yi mbir moomee naka la demee. waaw Kër euh, Malary nag euh, nekk na commune bu nekk ci région bu Sédhiou foofu nag ndaw yi euh, mat na ci ay at ñu ngi ñaan dëkk bi mun a am électricité ba tax na ñi def ay sitting yi bëri ak ay marche wante loolu nag antuwul bu ñu déggee nag ne ministre Mame Mbaye Niang day ñëw ci diwaanu Sédhiou si la ñu profité nag daal di baare yoon bi ñu ne daal pour autorité yi mun ko gën a dégg bu ñu baare yoon bi nag six heures du matin lañ ko commencé taal taal yi dëkk bi yëpp lëndëm nag eh, ci la nag eh, autorité yi daal di woo gendarmerie gendarmerie bu mu fa wàccee nag mu am ay jaamaarloo yu métti diggante eh, gendarme yi ak ndaw yooyu mu am ay xeer yoo xamante ne ñu ngi ko doon sandi gendarme yi di sandi ay grenade lacrymogène mu nekk loo xamante ne métti noonu na trop parce que pour ñu mën a deblu jënnee pneu yi ñuy ak bant yi ñu teg ci yoon bi mat na ay heures yi ba depuis six heures mat matin ba onze heures mën naa ne mu ngi am ay jaamaarloo yu nekk ci diggante gendarmerie ak ndaw yooyu ndaw yi nag ñu ne ñoom dañu bëgg électricité haute tension ndaxte courant bu fa nekk quatre heures de temps rek la ñuy am ba pare nag cinq mille francs la ñuy fay weer bu nekk ci cinq ampoules loolu loolu yëpp ñu déploré ko bu euh, Imam Mbaye Niang nag Mame Mbaye nag ministre de la jeunesse ex-sié moom nag dafa wàcc ci otom pour wax ndaw yooyu wante may ñu ko fu muy waxee fu mu commencé di déglu rek ci la xeex yi xeer yi jolli ci kaw cortège bi cortège bi ni la daw nag euh, daal di jëbale ci diwaanu Sédhiou mun mu loolu moo fi am nag gendarme yi jot nañu jàpp euh, onze ndaw yoo xamante ne fu mu nekk nii ñu ngi leen di ñu ngi en garde à vue ci brigade bu gendarmerie de Sédhiou euh, fu mu nekk nii nag boutique yi yëpp nekk ci commune bu Diène Malaré dañuy tëj bunt yi journée morte lañ fa def ville morte donc mu nekk loo xamante ne jàmmaarloo yu métti la woon diggante gendarme yi ak euh, ñooñu ñoo xamante ne ñoo nekk ndaw yi nekk ci commune bu Diène Bakary Konté ñu koy euh, sant di ko gërëm wax leneen mu ñeel ab xibaar jëm ci wàllu wérgu yaram benn pàcc bu hôpital Fann foofee nag ñàkkoon na courant euh, gannaaw ab câble Senelec boo xam ne indi woon na fa yàqu-yàqu ñu ni lépp jaaraan na ci yoon waaye nag Albert waaye foofee lu jëm ci opération yi euh, xam ngeen ni ay tout tànk lañu fay saytu seen wérgu yaram ne ñu dañoo dakkalani lu jëm ci yooyu les opération maanaam intervention chirurgicale ba lépp gën jaaraat yoon maam Biram daanaka benn fan coupure courant am ci diggante talaata ak àllarba ci l'hôpital Fann li ko waral di câble bi nga xam ni dafa yàqu te muy jox courant benn partie hôpital bi lu ci mel ni service pneumologie bala sax ca clinique des maladies infectieuses. père bi da wax dëgg yàlla métti na torop ndax bu xëyee coupé bu fekkee ne tàngaay baaxul ci malaat te bu coupé wee du am jaam day day tàng bu fekkee ne malaat bi may sax day fat ca Albert Royer coono boobu it la ñu dund. surtout waa fii urgence coupure bi arrangé wu leen ñun ñii tamit suñu malade yi arrangé parce que ventilo yi ci la suñu malade yi di nooyi bu coupé tuuti rek tàngoor leen di sonal xanaa ñu dimbali ñu ci rek. ba coupure courant yi ak moom bañ a manqué te. j'étais la surprise hein, parce que c'est ma première fois. coupure courant bi man bett na ma lool ba nga fi ñëwee yàggul waaye dañoo war a xam ni fii hôpital dañoo war di moytu lu mel ni di am. incident. donc il faut la coupure. centre hospitalier Albert Royer courant ba nga xam ni di doon jóge ci post bi dem foofee mënta nekk ba tax ñu taal ay groupe électrogène waaye groupe ba nga xam ne ni mooy jox courant chirurgie ba doxul ndax dafa paan waral opération yi ñu ajandi ko. ma ci diggante bi suñu benn groupe paan ce qui fait que am na yenn service yoo xam ne groupe bi li mu alimenté woon yooyu pratiquement ils sont pratiquement dans le noir. ce qui a causé beaucoup de désagréments au niveau des soins et au niveau de hospitalisations. Même le service de chirurgie dañu déprogrammé toutes les opérations dañ ko déprogrammé par mesure de sécurité. waaye opération yooyu ñu war a def nag boo moyut fii ak ñett fan dinañ ko tàmbaliwaat bu fekkee ni groupe bi baax na ndax câble bi saa su nekk mun na paanaat. loolu tax ñu war ko changer. bind nañu ñoom bind nañu lettre au niveau pour pour demander directeur général mu changer leen câble bi ça fait ak léegi ba léegi defe naa amaguñu réponse favorable directeur Albert Roy ak directeur bu Fann daañuy lëkkaloo bind laaj audience s'il le faut sax au directeur général Senelec pour que ñu changé leen ko. ci Albert Roy direction ba nag mu ngi def fi pexe ngir bépp torof torof boo xam ne ñëw na rek ñu mën kaa saafara ci biir sant bi sax ñu fi amal ay liggéey ngir mu gën a mucc ayib. Mame Birame dañu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram wax ci leneen sur saas kuréel gi lëkkale ñenn ci liggéeykatu wàllu yaram nee na bu nu moytuwulee daañu bank seen yoxo lu toll ci juróom benn weer lu ko waral euh, danoo mer ba futtu ci lenn ci seeni bëgg-bëgg ñu ne nguur gi euh, faalewu leen te jàppalewu leen ba tax na nag itam préavis de grève la mbaalo jacaam ak ñoñam fas yéene déposé bu ñu càggee te euh, mbir amul ñu bank seen yoxo ki ne dem ak Mohamed Dieng nguurug Sénégal nekk ci vacances ñaxtu yi syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllu wér-gu-yaram des ci tiroir yi ba tey mbaalo ja caam ak ki ñoñam ne faw ñu làbbali xeex bi. toog nañu ba nga xamee ni bureau bi nga xam ni moo joxoon mandat def na réunion parce que juróom-ñetti fan bi fees lañ ko defoon mais ñu ko def ñaar fan ak ñaar si weer wi. bureau bi daal nag comme que ñun li ñu doon xeex affaire këyit la te këyit yi yambul ba léegi nañ ko newaat xeex bi donc amul dara lu fi bees. grève bi si boppam waxuñu duñu ko defee mais danañ seet ban moment lañ ko def. xibaar yi ñeel wàllu wér-gi-yaram nee nañ daañu ko téye ba nguur gi di ci jot. loole yëpp bokk ci anam bi ñuy xeexee. xabaar yi nga xam ni euh, gouvernement bi war na ko mën a yor wala ministère bi pour mën a wax liñ ko jox nan la ko doxale ak li nga xam ne ni mu war a dox doxee. lan la war am comme xabaar pour doxal ko loolu nañ dañ koy téye de ce fait malade du ñu sonn te gouvernement bi dina mën a wax ak ñun mbaa mu def li nga xam ne moom la war a def. lii di couverture maladie universelle ci seen gis-gis fa ñu ko doon xaar yegg siwu fa. boo jëlee structure sanitaire nga xam ne bii dafa war a yow état bi yow chef de poste ba dong ngay fay ak sage-femme ba la ci def yëpp structure bi moo koy fay nga ne ko léegi nay jënd garab di maye te remboursement bi yéex. day sooxe donc problème remboursement bi day am problème di nga gis benn commerçant wala koo xam ne kii ko am xaalis la ca quartier ba bu indee doomam ci poste de santé bi wala ca centre de santé ba du fay ticket du fay vaccination bu ñu ko waree hospitaliser hospitaliser ko bu ñu paree dañ koy facturer nguur gi fayal kooku te kooku ñàkkul dara. tardement yi jëm ci payooru contractuel yu ministère de la santé et de l'action sociale arrière yi ñu nemmeeku tam euh, ci salaire agent yu bootu ci collectivité locale lépp euh, di ay jafe-jafe. ci loolu. ñu wax ci soble bi ni bayee biti réew te di ko dugal ci biir réew mi ñu ne nag bu ñu sàgganul daa dina dugaat euh, ci biir réew mi lu ko tàmbali ñeent fukki fan ci weeru mbar bi nu dëgmal lu ko waral dogal la bu euh, njiit yi jël ndax li ñu gis mooy euh, soble mbay bi nekk Sénégal doyul ci askan wi jaaykat yi rafetlu nu ni mel ndax ne ñu soble bi ni bayee ci biir réew mi lam leen indil ci ay koppar néew na lool ay satu pay ak Mohamed Sow Dieng dogal bi jib na mu mel ne léegi ñu yëkkati gelu importation bu soble bi ca marché Castor commerçant yi di rafetlu mbir mi ni mel ndaxte njaayum soble bi nga xam ni fii lañ koy bayee ay gàllankoor yu bëri la leen indil. soble boobu door moo ñu gënal tamit euh, ndax soble bi dafa gaaw a yàqu te pour dafa seer tamit ndax kilo bi instant yi ñoo ngi koy jëndee trois cent quatre 390 te après gars yi bu ñu koy bii genn wàll gi daanaka da koy sànni moo ci ëpp waaw moo gën a bëri waaw appartement bi ma ko xayma mais xam am na lu may sotti noonu dama koy may jigéen ñi sax commerçante bi gis ne li ñuy jaayoo kilo bi dafa cher loolu client yi mi sax yenn saa yi dañuy hésité balaa ñu koy jënd amalatuma benn rendement damay jënd 400 ma jaayee 400 moo ngi nii affaire bi dafa saturé moo ngi nii kenn mënu kaa jënd maa ngi nii di ko jaay 300. man lay wax ana soble bi bii moo fi am nag bii bii la mën a jàpp ba gis bële man bu doon sama sago bële génn moom. borom kër gi le moom dafa ñëwoon di ndugg lim ñu xamal nag mooy jënd soble bi ñu mbay moo ko gënal. bi ñu bayee fii moo ma gën saf. gën a sakkan te dimbal nañu bëri boo bëggee topp soble tubaab bi doo dem. bokk moo tax xam nga léegi yow boo yow li nga bay boo ko boo ko lekkee si nga ëpp vitamine local bi moo ëpp vitamine. ma gis naa si boo ko lekk li ngay digérer. agence de régulation des marchés yi xamle ne ñeenti fan ci weerum septembre soble tubaab bi dina commencé di dugg si suñum réew waaye na fekk nag mu nekk soble boo xam ne soble wu qualité la ba nga xam ne sénégalais yi daañu mën préparer seen tabaski bu baax. ñu des ci biir euh, réew mi ba tey wax ci immeuble euh, bi nga xamante ne si moom moo daanu woon fii ci euh, ndakaaru xibaar ba ca neex nag moom mooy ña dëkkoon daal ki nga xam ne moom moom bi lee taax nee na nag dina leen delloo lii di seen i caution ngir ñu mën a amaat feneen fu nu dëkkati fay ko askan wa ñu dendal ñoom la ñu bëgg rek mooy ñu daaneel boo bi lee tabax ndaxte itam mën naa indi jafe-jafe wala mu indi loraange alxasan ba lañ ci àndal mel na ni pexe mi ngi waaj a am ngir jàppale fukk ak juróomi njaboot yi dëkkoon ci immeuble bi nekk ci rue 28 angle 31 bu Médina. borom kër gi engagé wu na pour delloo leen seen ay caution pour ñu mën a uti fa ñu dëkk donc def na ko ci diggal ci ci teewaayu commissaire u quatrième def na ko ci teewaayu police donc ak autorité yëpp ne dina leen rembourser jël na engagement wu leen pour ñu uti fa ñu dëkk. promoteur bi nee na dina engagé wu na d'ici vendredi pour fay leen. caution bu soobee yàlla parce que commissaire bi mi ngi ànd ak ameluñ leen dara ameluñ leen dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm. mu nekk li war a mën a dalal xelu njaboot yi immeuble bi moom di waaj a daanu waa ji di sàkku si boromam mu daaneel ko ngir kaaraange askan wi. dañ koo war a toj fi mu nekk nii comme yàlla def na soowee nañu kenn gaañuwu ci soowee wuñ ki respecté wuñu cordon bi quoi te dañ koo war a respecté. ndax bi ma daanu maa ngi koy xool. bu ñu toogee ne ñun jox nañu trois ans délai pour ñu génn. est que loolu xel mën na koo nangu ba pare chaque weer ñu fay kenn mësu ñoo jox dere kenn mësu ñoo jox dere. adjoint au maire bu Médina bi di wax ne tàmbali nañu ab opération ngir xool dëkkuwaay yu màgget yi jot nañu bind ay sommation dañ koy wéyal ndax euh, keroog préfet ak maire jot nañu visiter ay bâtiment yi nga xam ne ñu ngi ci situation yi kër gi mel ñu ngi waaj a daanu. donc préfet jël na dogal ak maire ñu jox leen ay sommation tey pour que ñu wéyal opération bi fii ak une semaine kër yooyu yëpp ñu recensé ñu ngi ñaan borom kër yi ñu remboursé nit ñi seen ay caution pour ñu uti fuñ dëkk. njaboot yi di wéy di nekk ci école Médine bu Médina ñu yàkkamti loolu génn ci situation bi ñuy dund. ñu wax ci xibaar mu aju ci tënk Youssou Ndour nag moom mooy invité d'honneur bu MEDEF MEDEF nag di mouvement des entreprises euh, ci réewum France jëwriñ bi di xalal njiitu réew bu Sénégal euh, bokk nag ci université euh, d'été bu MEDEF moom nag ma ngay amee ci HEC Youssou Ndour nag waxaat na daal lu jëm nag ci euh, relation bi dox diggante Europe ak Afrique li mu gis rek moom mooy euh, jëflante boobee dafa war a rafet lépp itam euh, ñu teg ko ci joxe cër gu mat sëkk muy sàkku nag ci waa Tugal ñu gën a jox cër Afrique ndaxte itam seen partenaire la waaye itam waruñoo jël seen dogal rek ñëw ne ko lii ngay jëfee déedéet moom gisewul noonu moom ministre conseil itam li mu wax rek moom mooy Afrique daal. Euh, moom mooy ëllëgu àdduna daan ci dellusiwaat euh, ci sunu yeneen jataayu xibaar ñu yegg si ci beneen ponk xibaar yi biti réew yi la Chérif Dia moo jàngatal ñu ko. te Somali gën gaa yees lu ëpp fanweeri doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci chebab euh, yi ci jàmmarloo bu doxoon seen diggante ak soldat yi nga xamante ni jege nañ lool gouvernement bi. jéye yooyu nag mi ngi am ci àllarba bi ñu génn buñ sukkandikoo ci benn communiqué bu armee ba daal di génnee bilan bi wuute lool ak bilan wu Chebab yi nga xamante ni daal lim ban wax gën na ko yees jéye jooju mi ngi am ci benn dëgg sërëx bu lalal yooyee soldaar ci dëkk bu nantuloo Barbako ci région bu nekk ca Gedo moom ma nga nekk ca frontière u Somalie ak Kenya kilifa yi nekk ca boobe diwaan nag nee nan ci fanweeri nit ak ñaari ñekk seen bakkan fukk yi ak benn ay soldaar lan ña ca des nag ay chebab lan ca Tchad fukki doomu aadama yoo xamante ni danoo bokk ci groupe islamiste bi di Boko Haram jàppoon nañ leen fan yooyu ñu génn ñoom nag dañ leen di àtte rek ci benn cour criminel bu nekk ca na di capitalu Tchad. muy procès bu njëkk boo xamante ni ñoo ngi koy amal foofee ca càdd ndax ñoom ñi dañoo jëloon ay ndell di amal ay attentat suicide sa N'Djamena ba faat fa ay doomu aadama yu bari ca fukk yenn at nag ca gën a fës moom mooy Mouhamad Moustapha ñu koy dàkkantale Bana Fanaay ñu jàpp ni moom moo jiite kuréel googu ba tax na fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu génn attentat ba amoon foofu ca N'Djamena moom moo ko jiite woon ca Nigéria moom tey jii ci alxames ji moom mooy juróomi téeméeru gis bi nga xamante ni lu toll ci ñaar yi téeméeri lycéennes yeneen nekkoon ca Chibok ca Nigéria waa bokk araam tegoon nañ loxo ba léegi kenn gisul leen muy fan yu bari yoo xamante ni seen i ba léegi daal gisuñ jànq jooju yi nga xamante ni Boko Haram teg na leen loxo moonte day jamono ji leen jàppee àdduna wërngal këpp fu nekk ay kilifa rawatina borom yi tur jugoon ngir daal di sos benn kuréel gu ñuy wax Bring Back Our Girls di sàkku rek ci waa Boko Haram ñu dellu si jànq jooju ñoom bokkoon ca jabaru Barack Obama di Michelle Obama ak Angelina Jolie ak yeneen i kilifa wante ba léegi France daal di xëddeen loolu mu ngi am fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci atum 2004 waa Boko Haram ñoo ñëwoon ci benn lycée ca Chibok ca Borno daal di rek jàpp ndaw ñooñu wante day loola ba mu amee weer chefu Boko Haram di Aboubacar Chakour génnoon na di bàkku ne ndaw ñooñu jàpp na leen te def leen a dugal ci lislaam jeexale ko ca centre Afrique foofu nag ki nga xamante ni moom moo fa remplacé général Babacar Gueye jiite rek mission ONU boobu ca centre Afrique di gabonais bi di Parfait Onanga Ayanga moom nag bay démb ji amal na benn conférence de presse ci jàkkaarloom ak taskatu xabaar yi nee nan nangoo nangooti benn soldat ñu koy tudd ci ay ñaaw ñaawteef rawatina sàkku ndaw ña nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ca centre Afrique moom waa ji nee na la tax a jóg mooy fexe rek ba aar kaaraangeeg askan wa te tamit jusqu'à seen rôle mooy dugg ci wàllu social maanaam dimbali rek askan wi ci jafe-jafe yi nekkee ngir kaaraange mën a dellusiwaat ca centre Afrique. Euh, tàggat yaram dem ca diwaanu Tunisie fekk fa Cheikh Tidiane Diawo Cheikh Tidiane nuyu naa la. fay naa la Fatou Dieng. Sénégal euh, mooy joué quart de finale mu dox digganteem ak Algérie fii ak waxtu yu néew la naka suñu gaynde ak waajal ba ndax ku ne gis na démb Algérie diggam ak Cameroun. Euh, mu mel ni équipe la boo xamante ne itam euh, ma ngay defi jaloore ci bile kan. waaw Fatou mën nañu wax ne tournoi bi moom mi ngi door a commencé nag pour gaynde yu Sénégal yi ndax fi nekk nii moom. dañuy wax ay c'est des choses sérieuses gagné rek mbaa ñibbi sa dëkk yëf yi final la te équipe yu gën a baax rek ñoom ñoo fi des ci tournoi bi Sénégal Algérie nag comme ni nga ko waxee 17h30 euh, la heure Ndakaaru 18h30 fii ci Tunis. muy match boo xamee ni euh, gaynde yu Sénégal yi ñoom euh, pare nañ ko mën nañ wax ne pare nañ ko parce que déjà entraîneur u Tunisie bi moom dafa xaw a am tiitaange sax ci euh, débauche d'énergie bi nga xamee ni entraîneur u Algérie bi xaw am tiitaange ci débauche d'énergie bi nga xamee ni équipe boobu def na ko démb ci match bi contre Cameroun nga xamee ni daanaka ci tiers yu mujj yi sax la ñu mujjee dóor Cameroun muy match bu métti métti si ñoom yëf yi nar a xaw a andi problème de récupération parce que soo seetloo Euh, Algérie euh, daanaka en l'espace de vingt quatre heures maanaam benn bésu la mu daal dinañ ci jouer ñaari yoon parce que seen match bi démb mi ngi jeex ay euh, vingt trois heures ñu nar a basketaat tey à 17h loolu day andi problème de récupération physique wuuteeg Sénégal bi nga xamee nag amoon na benn jour de repos te tamit mu. Euh, démb teel a pare match am match bu yomb boo xam ne daf ko géré woon ci digganteem ak Ouganda euh, mais nag algériens yi soo leen xoolee démb xam ne équipe la boo xam ne nii bu bàyyi dara dañuy xeex dañuy dem ba jeex même si euh, sur le plan talent intrinsèque équipe Sénégal moom moo leen ko ëpp mais match basket la faw nga joxe lépp ngir mën a qualifié Sénégal nag su jéggee obstacle boobu nag war a fekk ji mën nañ ko wax ni Nigéria si match bi mi-temps la nekk waaye jamono ji plus de vingt points d'écart moo nekk ci diggante Nigéria ak équipe bu Gabon Nigéria nar a qualifié euh, demi-finale di xaar nag euh, ci diggante Algérie ak Sénégal. gisi ko. ñu koy sant di ko gërëm ñu des ba tey ak euh, moom ndaxte am na euh, kàddu yu mu taataan jëlee ko ci kii tàggat euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu Algérie yi moom li mu wax rek xam na de match bi du yomb ba noppi itam ñoom dam ko waxee démb ak tey daanaka noppalu wuñ lu bëri dañ koy teewlu ba tey ak ñenu fa teewal foofee ca Tunisie. On avait tracé comme objectif se qualifier pour les quarts de finale. suñu objectif moo doon yegg si quart de finale Sénégal déjà am na avantage benn jour de récupération te ñun suñu match contre Cameroun bi physiquement euh, dafa métti woon torop match bi euh, dina gën a métti. cette équipe et c'est une équipe qui monte en puissance. ndaxte Sénégal équipe bu jafee tëye la foofu ñu def ay rotation yu bari. pouvoir au moins faire le rendement nécessaire pour cette rencontre. Alors coach, est-ce que vous avez un plan anti Gorgisidien ça va euh, juróomi jour marquage ci moom rek moo koy mën a téye koy jeexale ak euh, championnat d'athlétisme yi am ca Pékin euh, doomu Jamaïque bi di Usain Bolt waneeti boppam 200 mètres moo ko gën a xarañati ci àdduna bi gannaaw ba mu jiitoo doomu Amérique bi di Justin Gatlin leeraleeg Mamadou Ndiaye. 200 meter final. Usain Bolt daal dinay jël finalu 200 mètres bi ñu amal fële ci championnat du monde d'athlétisme comme ni mu ko defee ci 100 mètres bi jamaïcain bi daal dinay am lu toll ci 19 secondes ak 55 Usain Bolt daal di gagné kii di américain bi Justin Gatlin mu nekk ñeenteelu titre mondialam jamaïcain bi nekk athlète bi nga xamante ni day daal di dugg ci histoire athlétisme mu ngoog euh, Usain euh, Bolt euh, champion du monde bu 200 mètres ñu wax ci leneen mbokk yi muy dossier bi dossier wàllu wér-gu-yaram alxamis bu jot tey ñu de tànn benn ponk waxtaane ko muy mag ñi ak tàngoor wi lañ ca nimiku mooy ak toppatoo gu sëkk la laaj ndax buñ ko deful ñoom mag ñi dinañu sonn lool ci tàngaay bi maam Biram Diouf ak Mar Dieng lañ ci yàndal ci ay leeral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 Mame Birame Diouf ñu lay sant di la gërëm ñu yegg ci ponk bu mujj bu xibaar yi mbokk yi li ci yéene kaay la Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci nga xam ne dañoo bokkoon ci ñi ñu jàpp jàpp na yooyu ñi faat Bassirou Faye ñoom ñaar ca ndax ñi nga xamante ji ñoo seede ñett ca seede ya ku ca mel ne Seet Diagne ku ca mel ne Doudou Faye ak ne jonn daanaka génnewuñ ci Mohamed Bouhaleb Mohamed Bouhaleb moomee bu dee moo rey Bassirou Faye dañoo jàpp ne ak fayu la ndax dafa nekkoon université Cheikh Anta Ndakaaru ca jàppante ci nañ ko waxee la tax mu dellu si ak fan la enquête bi toll ba feeñal loolee moo di waa Sonatel jokkool waa jàpp ci enquête bi def ci gëstu la gis moo di 12h45 ma nga woon ca boori école normale supérieure ay boori 18h maanaam jàpp moo ko faat na wàll observateur Tombon Wale réccuwul tey li jël na lépp nag teg ko ci loxo yàlla sunu borom gars yi yi ne ko waaye procureur de la république dafa def appel loo xalaat ci loolee mu ne leen bu ko neexee du man Tombon Wale maay ki ci war a wax réew mi am na ay këri kilifteef di institution yoo xam ne ñoo ca war a wax ci la témoigné Tombon Wale wax ca ne jàpp gi ñu ko jàpp metti na ko lool enquête si nañu ginnaaw fukki weer ñoo ko téye ci jeel bi tombo waali génn na ba mu génnee wax na ak ñoom ci li mu wax ak journaliste enquête yi ne bokk na ci li mu leen a metti mooy day ko doon jàppale populaire nañu tombo waali wax na na ko jàpp nee na a jóg génnee ci kaso bi seeni avocat léegi ñi ngi ci beneen beneen xeex kenn ci avocat yi di maître Khassimou Touré mooy avocat Saliou Ndaw li mu bëgg moo di ab kiliyaanam ñu dugalaat ko ci police bi maanaam intégré waat ko maître Bamba Cissé di avocat Tombo Wali laas nañu li mu bëgg moo di ab kiliyaanam di Tombo gannaaw bi ñu ko téyee ci kaso bi aw turam ñu ŋawtu ŋawtee ko fu nekk jëli tuuma gàll ci ndoddam bàyyi nañu ko bu ñu ko bàyyi mu demee noonee nañu ko dàmp laas nañu wax ji nag du loolee wax ci kaso bi doyen di sis moo ne ko demal waaye tombo mën naa delluwaat ca kaso bi ne bu ñu fàtte ne procureur dafa def appel bu chambre d'accusation ànd ak procureur bi tombo ci kaso bi la jëmaat procureur de la république Walfadjri nañu ci sànni tàccoom la toll fi ma toll maa ngi ci populaire ñu seeti fa Aminata Tall njiital conseil économique social ak environnemental populaire nañu démb dafa waroon a teew ci anniversaire porteur pancarte yi ñu doon amal ko fa dab mu ñeenteelu personnalité état bi yéen a kaay bi nañu tuutee desoon mu des ci loxo la si ne kaay nañu 26 démbam bi moom Aminata Tall du ko gaaw a fàtte foofee la ko jëlee yóbbu ko urgence ndax wàccu mu metti mu doon wàccu grand place ñu si bu bona ko dàpp couverture maladie universelle ñu naan ko CMU jaratuñu dara ci réew mi waat SUTSAS ñoo xëy ci moom ñi ngi xëy ci moom ci Sud Quotidien ci yéen a kaay di couverture maladie universelle ndax ni ñu Samba solal bàcc Abdoul Aziz Diakhaté génnagul ci mbàll gi bi leen Le Quotidien Abdoul Aziz Diakhaté mooy taximan bi doon yeb ay kiliyaanam yóbbuloon ci technopole ba di yegg ci seen kaw yéen bi dañu retour de parquet la am démb waaye moom Abdoul Aziz Diakhaté moom mais fukki plainte ak juróom mi ngi gàlle ci ndoddam Mohamed Ndiaye ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci seen safo ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média jox leen dig daje ngoon bu ci yàlla àndee ci yeneen jotaay xibaar niñ ko baaxoo di def saa su ne waxtu wi duñu dem mukk te fekk wuñu Kebs Thiam di ko nuyu di ko dalal ci permanence. ma lay fay euh, di kontaan ci sama rakk ji faati Dieng ni ngay defee journal noonu la mm. euh, Sénégal ak àdduna yëpp kontaan nañ ci yow ndax nag information bi ñu wax euh, diversifié ba pare tamit doon lu dëggu yaakaar naa ne yaa ngi ci yoon woowu. merci beaucoup tey da ngaa bu baax sax. <laughs> été lañ nekk mu ngoog kon xam naa permanence léegi léegi lay doon ñu bàyyi la rek ak ni ngeen koy defee saa su nekk waxtu wi ci programme yi. dëgg la ni nga ko waxee noonu la léegi léegi rek ñu ñëw ci li nga xam ne mooy permanence faram fàcce programme bi. bu leen zappé yi programme télévision Futur Média day wéy jaa ngeen jëf du jàmm